aousubillahi mina seytaan rajim bisimillahi bàkke borom tuuba mbokku jullit yi mbokku taalibe yi comme niñ ko baaxoo amale ci waxtu yu mel nii ci dundal koor fii ci maktabatu Cheikhul Khadim daaray kaamil tey ñu ñëw ci juróom-benn fan ci weeru koor ñu ñëwaat ci thème yu am solo muy les commandation de Cheikhul Khadim dénkaane yi Serigne Touba yi ñoo cee ànd ak euh, sëñ Cheikhouna Ka mu war cee feggoog sëñ Mbàkke Joob Xudar xam naa di jëkkanteeg waxtu wi rek jox sëñ Mbàkke Jóob kàddu gi kon sëñ Mbàkke bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu ali beytihi alkiram altayibin altahirin zawi ridwani wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di assalaamu aleykum di jital ci nuyo yi ak ziyaar yi al Khalifatul amdil muridin shaykh muhammadil muntaha al basir di ñaan yalla borom bi subhanahu wa taala may ko fan wu gudd ànd ak wér yaram banali ci l'islam ak yoonu murid may gele yépp ñaan ko ak moom di Ziyare, suñu wajur wi nga xam ne yor daara ji di maktabatu shaykhul khadim di Serigne Moustapha jatara di ñaan yalla suñu borom gën ko dëgëral gën ko taxawu ci liggéey nga xam mi ngi koy liggéey ci yoon wi ak ci l'islam xamna sax jataay bi mom moko warona def waaye mu am gant santone ñu ñu jëm ko taxawé and ci ak Serigne Cheikhouna Ka mu doon jataay boo xam ne dañ koo jëmale ci dénkaane yi Sëriñ Tuuba ndax daara ji biñ tàmbalee waxtaan yi ba léegi rawatina ci at yu mujj yi dañ koo seddale ci ay xaaj am na ci yoo xam ne dañuy tànn lenn ci téere yi sëriñ bi di ko jàngat am ci jataay yoo xamante ni dañ koy jagleel lu jëm ci dénkaane yi nga xam ne moom la sëriñ bi doon dénk ay taalibeem waaye am ci ay jataay yoo xam ne dafay nekk ay musaabaqa thaqafiya muy séminaire bu ñuy dox ci diggante école franco arabe yi ak arabo islamique yi nekk ci dëkk bi di Touba ak musaabaqa boo xamante ni dañ ko cee dolli ren mu jëm ci mokkal téerey sëriñ bi waaye génnee ci ay laaj yoo xamante ni dañ ciy natt ki ko doon tari ndax mokkal na ko bu jàllee ñu natt ba xam ndax dégg na ko wala dégg ko ak ay fatawa muy laaj ak tontu suñ cheikhna mi ñu wara andal jotaay bi nak euh mu doon ko xamne ku ñu xam ci dekk bi la doon ko xamne manef na wax ne fi la defé lepp fi la jangé ba yalla suñ borom dogal bim jangé ba jéxalum jangam mu doon ko xamne dafa dafa sóobuwaat ci tolu xam-xam muy jang ak jangale su ko defee nag mi waxtaan wi ni muy tëddee danañ jéem a andi ñun ab tënk bu gàtt rek ci mi dénkaane bi nga xam ne moom la fas yéene traité su ko defee nag bàyyi ko mu def li ñuy tuddee diraasa taxliliya maanaam jàngat xasida gi xasida gi ñuy jàngat nag boo demee ci wasaaya bi nga xam ne waa dajale nañ ko ci xatu 214 japp 215 dang ko ca fekk ñu tuddé ko wan bi may waji wax muy wasiyatun lis salihi abdullah sar muy denkané bo xamné ne sëriñ bi daf ko jëmele ci nit ku baax ko xamné turam moy abdullahi sar kon abdullahi sar mi mom la sëriñ bi denk denkané bi Abdoulaye Sarr Momot liy wane na moom la sëriñ bi dénk dénkaane bi bu ñu xoolee ci biir dénkaane bi dañ ko cay gis rod na ci ñaari yoon ci njëlbeen gi muy tarjumaan ji wax na ca fa inni usallimu alayka ayuhal axu saalix Abdullahi waaye ci biir madlaul wasiya muy bayit bi ci njëkk indi na ci turam yaa xillu yaa muridu Abdullahi laa zilta majzuban li baabillaahi yow sama soppe yow murid bi abdullahi yàlla boo dañ di nekk ku yàlla di ñoddi jëme la ca buntam ñu mën a wax ne dénkaane la boo xam ne bokk na ci yi sëriñ bi bind laata muy dem ci tukkib géej looloot li koy firndeel mooy bayit bi nga xam ne moom la ko daaneele dunakaha min watani salam nasihatan ilaika khalli wassalaam yow ya Abdullahi Sarr jëlal dénkaane bii ma la mu bayiko ci sama rew muy sama dekk bi ñuy wax daarissalaam kon dañuy déggee fofu ne daaru salaam la ko bi bindee lata mu ñew Touba kon diggante 1886 japp 1888 1304 jàpp 1306 ci dig-digal boobu la sëriñ bi bind dénkaane bi jëmee ko ci Abdullahi Saar waaye tamit doonoon ab taalibeem muritub sëñ bi la woon ndax li koy firndeel yaa muridu Abdullahi yaa muridu Abdullahi googu li muy firndeel mooy ab morid la woon ci muriti sëriñ bi euh, kon liñ ci déggee rek mooy ci yu njëkk yàlla yi sëñ bi njëkk a def xam naa su ko defee dañuy tënk rek yenn ci thème yi nga xam ne sëriñ bi tereete na ko ci biir jox suñ seexu naa mu yaatal yaa xayra day filaada mbokk taalibe yi xidma ci jumaay Tuubaa weeru koor tàmbali la li gën a fees ci xasida gi mooy digal gi mu koy digal muy rëbb aw yiw ak ragal yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye li gën a fees ci xasida gi ba tey mooy digal gi mu koy digal mu jël mbiram yépp joyal ko jëmee ko ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala nga ne bum yaakaar kenn ku dul yàlla bum sukkandiku ci kenn ku suñ borom subhaanahu wa taala bum jeng tamit di jëm ci kenn ku dul suñ borom waaye bokk na ci li gën fees ci xasida gi mooy tere gi mu koy tere muy jaxasoo ak ñaa xam ne dañuy mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala ak ñuñ mën a doon waaye bokk na ci li ci gën a fesit muy digal gi mu koy digal muy jekk yaale ak ñoo xamante nii ay nit ñu tegu ci aw yoon la ñuy doon maanaam muy toogaale ak àndaaleeg nit ñoo xam ne dañoo tegu ci aw yoon waaye bokk na tamit ci lim ko digal ci biir xasida gi te mu fees ci lool muy mu tënku ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam bañ cee yokk bañ cee wàññi kon def na wax ne ci tënk yooyu mooy yenn ci tem yi nga xam ne sëriñ bi tereet na ko ci biir dénkaane bu am solo bi mu doon nag dénkaane boo xamante ni guddul lool ndax yaakaar naa luy tolloog ñaar fukki way ci lay war a toll baa mu manqué ko tuuti kon taxul mu gudd lool xëy naat sëriñ bi gàttal na ci lool ndax li koy lawla sawaaxili wadiqu sadri jaaltuha akthara min dil qadri bu toon ak soxla yi nga xam ne moo may gàllankoor ak xatuk sama dënn dinaa ko def mu ëpp lii gatalu weeru koor dundal ko màggal ko ni ko cheikhu xadim daan defee di berle jaamu yàlla yi ci dogu yi ak ci conférence yi wi yëpp xam ngeen ne jaamu yàlla te mu gën a sakkane mooy ca jumaay di ndigalu looloot dañ cee jublu rek muy def benn laltaay boo xamante danañ mën xam li xaside gi ci ban période la ko bi taalif ak lenn ci li nga xam ne ci jot a su ko defee ñu bàyyi la nga eggale xam naa bi ko sëñ bi waaye muy baxar Eh, rajas muy mustafin lun mustafin lun mustafin lun mustafin lun mustafin lun mustafin lun kon dañ lay bàyyi ngay Touba te digal digalum Serigne Touba feex bu baga a la ay lambu làmbatu mayu ko kon nak mbokk yi ànd len ci wàccaay yi ak bu xaadimatul xidma foundation yónnee seen jaayante ramadan ci plateforme bi di w w w point touba mosque point org بالدين والمحتاج على الوحدان naal moon ko àggale di siyaare it ki bi si Moustapha Diatra yàlla na ko dana jafe nag lool nag aw mool daw dawab naaru góor ndax moom moo ko def ñun ay ay ay asi mool lañ rek ci ci waaye dañ jim suñu kéemtalaay kàttan rek ak ci ñaanam rek ñu jim ci man dara li ñu bëgg def nag muy diraas ak taxliil yaakaar naa mooy nafar ak luñ bët ci wolof bu dee jàng tubaab bi ñu ne leen étude ak analyse analyse nag ñi jàng xam nañ ne lu compliqué la ndax dafa bëri lum laaj ndax dafa am madmuun bi lim na ci biir ak yax bi mooy forme ak fond bi gannaaw ay jàngkat dañ fay nekk ay élève di seetaan wala étudiant bu leen dañu bàyyaale xel seen niveau ba ñum tamit ñu mën cee xam ëllëg la mooy analyse daa mel ne nag ba ñoo mën a aborder thème bi dañ deltu gannaaw deltu gannaaw ci alquran qala taala wal takun minkum ummatun yad'u ila khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar loolu ya ngeen ko dégg kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas baaye bi jeex ba tey wa wasaa bi ibrahima banii wa yaqub yaa banii inna laaha stafaa lakum fala tamuutunna illa wa antum muslimuun sadaqa llaahu aziim kon baatub wasiya feeñ ni fii ci alxuraan mu mel ne nag gannaaw bi nag si Ahmad Bamba Xaadimu rasul dafa ñëw moom tamit am lu mu yor bu ne fàtt na sëñ bi dafa nekk mu jaddit ndax moo wax diinun siwaa islaamu laa yuhmad inna ilaa bi nu jadditu comme nak am responsable lu ko war ndax dafa am ndonu gum ndonu ci l'islam yàlla boole ko ak mbolo kon wax dig yàlla logiquement ci xel mana jàpp du len bàyyi ñu tafa tafari dem dañ len dénk dara kon lulu mo waral wasiya ni yonte yàlla ibrahim sunna ibrahim alayhi salam ndikon na def ak njabotam dénk len naab len wax len su jige nu bëgg ñu def kon wasiya buñ la waxe lan moy maanaam wasiya da nga wax rek na ay génne xam-xam yi ñu génn la yo xamné liñ ci djublu day def taalim ak tawji ak tarbiya ñett yu ci la bokk kon bu ñu laajoon la lan moy wasiya da nga wax ne ja ilmi yatun yo xamné ni day am hadaf at-ta'lim wa wa tawji wa tarbiya batay dañ ci fekkat ay irshad ak tazkir ci wasiya lay nek man ci wolof dal ndenkal bii bi ko tax jóg day ñëw pour xamal nit ñi ak ngir orienté leen ak ngir tàggal leen ak ngir jàjj leen ak fàttali ëllëg seen borom kon loolu mooy mooy ndénkaane sëñ bi nag def na ci yu bëree bëree bëri la tax moo ci yu bëree bëri ndax mbooloo la ko yàlla booleeg te bu demoon defu ko fi rek ëllëg duñu xam suñu tànk jamono ji lëmbe na ba tey jii nag li ñuy waxtaane nii tey ñépp ci gis bopp ndax wasiye yi bi li muy li mu làmboo ak li mu lekk ci njariñ képp ku jullit wala sax képp ku di rek nit rek war nga ca mën a niitu teg ci sa tànk euh, <clears throat> wasee bi ni ko sëñ bi waxee léegi fi mu tàmbalee moo imsaal amr jëfe ndigal ak bàyyi tere jëfe ndigal ak bàyyi tere feeñaan na ci ci biir wasee bi lu bëree bari ak taqwa baatab ragal yàlla te xam ngeen taqwa bu lislaam jullit diine mën nañoo wax na mooy yuq ak diine yaa ayyuhal lazina aamanu yi haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yàlla woote ee yéen ñi gëm na ngeen bàyyi xel yàlla dëgg-dëgg bàyyi xel na ngeen sédd ci li ngeen def yàlla na ngeen ko ragal ci dëgg-dëgg ga bu leen faatu mukk lu dul rek ndara ngeen nekk julit kon mu mel ni képp ku faatu rek amoo waa dangaa génn ci diine te loolu yàlla na ci yàlla musal kon loolu bokk na ci li nga xam ne nii génn na ci bokkaat na ci it ci taxawaa googu noonu ñu kiis ji dafa am ay meññeent yu ci nekk ndax taqwa muy ragal yàlla day tax am barke ragal yàlla day taxa am wërsëg yëpp alxuraan wax na ko walaw anna ahlul qura amanu wa taqaw la fataxna alim barakaat misman wala ardi si borom mu ne bu doonte waa dëkk bi wala bu doonte waa gox bi bu doonte nit ñi bu doonte askan wi ak bu man doon rek ragal nañ yàlla yàlla na wàcc ñoom barke asamaan ndox tuuru ànd ak barke waxaan na feneen yi daan ne wa man yattaqillaa yaj'alu yaj'alu maxrajan képp ko ragal suñu borom yàlla wubbil la lu jamono xat-xat-xat lu dépense jafe-jafe-jafe ak lu métti métti métti yàlla doon wubbil wubbil ab ab ab ñàll boo mën a jaar wa yarsuqu min haysu laa yàlla wërsëgal la loo xam ne doo ko fàggandiku kon moo tax ci kii wasiya bi sëñ bi tarkis ci bu baax a baax bàyyi xel ci bu baax insiste bu baax a baax ci ataqwa muy ragal yàlla kon ñu gis ko ci ne feeñ na ci ci lu bëree bëree bëree bëri fan la ko wax moy fi mu wax ya qillu ya muridu abdullahi la zilta majzuban ba baabillaahi kun samti saalin washnaab abad li amri wa nahyi tukfarada farada ko bul dañ mukk yow abdullah yow murid bi Abdoulaye mii dafa dafa représenté mboolem murit bi képp ku toog rek xam na ci nga bokk ci ci wax ji mu ko wax maanaam yow gi mu ko wax man ci laa bokk yéen ci ngeen bokk yàlla dimbali nañu bam ba mu dénk ko ci moom googu muy yow mu mu ko wax dafa jaarale ñëpp bokkaal ci biir gisaal seen bopp ci biir kon kenn ku ne na bàyyi xel ne ci lulu ya yow lay waxal ya ya ya ya murid abdullahi jappal ne yow la tax sin bi wax kep ku fu tok jappal ne ya tax sin bi wax ne na nga jëfe ndigal te tet tere yi bayiko ko defe pelan le lan lay andil mu ne kon da nga am mucc ci alkane fa am résultat immédiat bo defe li rek am li da mel cause conséquence bo defe nangam am nangam kep ku jëfe ndigal yi bàyyi tere yi directement rek li ci topp mooy di yàlla na la fegal alkande fegal la musiba fegal la coona fegal la yépp ndigal mooy lan mooy na gàttab tànk bul bëri ay mébét bul bëri ay soxla bul bëri ñeetaane bul def la ba gis bëgg ko yooyu képp koo def nopp nga am jàmm waaye képp ko bàyyi rek xamal ne am nga banque bu du jeex mooy kansun laa yuf naa mooy doylu da ko lëbbaale ci biir képp ko xam ne que nii jëfe nga ndigal teg tànk li ñu def nga topp ko jaamu yàlla nga jaamu yàlla lum to luñ tere nga sori ko doo ko jege da nga mucc kon loolu da ca feeñ ci jëfe ndigal ak bàyyi tere alxuraan nag li mu bëri bari bari wax nañ ne loolu rek moo ci nekk jëfe ndigal bàyyi tere Cheikh Mourtala radiyallahu anhu daal di ko wax jëfe ndigal bàyyi tere yi kenn mënut wax lu romb loolu jëfe ndigal julli ci la bokk woor ci la bokk jox asaka ci la bokk bàyyi tere yi bàyyi nar ci la bokk bàyyi jëw ci la bokk bàyyi yudd ci la bokk bàyyi rambaaj ci la bokk bàyyi yeneen yi ci yëpp yi ma bàyyi tudd ci la bokk ngeen xam ko kon nag loola lu rëy la loo xam ne bi ko suñ bi waxee nag Abdoulaye Sarr da ko waxaale mbooleem jullit yi mbooleem képp ku lu bëgg baax rek ci nga bokk ndax mu muriid romb na lu dee dafa lu sori la mu tegaati ne ko fa in tuddim saydan rasaat wa tuqaa tanal bismillaahi madana wartaxaa ñëwaat na ba bu fekkee da ngaa da eh, ak njub ak mën a àgg suñu boroom ak ragal suñu boroom nga nga teg sa tànk danga am danga am majd danga tedd tey danga nga am da nga yëkkatiku ko dem ba suñu boroom ba kawe ba say jëf yëpp yàlla gërëm ko te yàlla am na addis bu waxoon ne bu yàlla gërëmee day day yebal jibril mu wax malaayka yi ne leen diw day yàlla gërëm na ko wax nit ak jinne ak lépp lu yàlla bind nako diw gërëm yàlla gërëm nako su boba yàlla ne moy muju don say tànk yi ngay doxe manam bo dox jàppal na yàlla moy dox waxin la boy wax yàlla moy wax lo wax day am boy xol yàlla moy xol lo xol day am lo bëgg yàlla kay def lolou likay likay li koy joxte loolu ci la bok ndinkaan ci bi li mu fi kep ko def lolou jomb la nga ca àgg mu wat ci ben tomu bi a tawakul mooy wakiirlu waaye nag bokkut ak tawaakul tawakkul mo da nga def li nga war def ba noppi bàyyi yàlla mu def la nga mënut ci misal bu tawee ba tooy xepp da nga xëy dem gert bo gert mëno ko saxal wa nak da nga def charte da ñaan la pour ab dom sax day am chaleur humidité ak air manam taw na ba toy nga ji def nga kont la nga man la nga mënul nak moy saxal sim borom mo fi indi humidité indi fi air ba ba ga sax mu koy sàmm ngay bay wa dula bayal wa waaye bu fekkee da rek eh, na man dewmo dewmo tol japp na da nga góob da nga nax sa bop lolu kon bokku tawakkul tawakkul moy da nga def li nga war def ba nopi ni ko alquran waxu ñu sallallahu alayhi wasallam na azamta fa tawakkal ala allah bo doga ba nopi def li nga war def nepp ba nopi nak na nga wëkkër ci yàlla yalla agalel ci misal bo tërléb gàtt yor sa paka ya kay rendi wa yalla kay ray wa bo tege paka di xol rek du de ndax yàlla dafa am logique li nga man doo ko defee mukk ci àdduna lay seetaan waaye boo tëralee xar mi jël sa paaka naam ba mu ba mu na ba mu ñaw nga dawal baat bi yàlla mooy rey yaa reen di ndax ba gi génn gisoo ko da ngaa def sabab bi rek sabab bi mooy lan dawal paaka ba kon loolu mooy tawakul waaye nag ñu bëri dañu jàpp ne tawakkul mooy toog na yàcc rek léppay ñëw déedéet toog muy dox rek yomboo noonu boo toogee da nga am ci loo toogee toogee loxo yi loolu moom yombut lool waaye nee na tugg te toggalu mënut a yàgg tugg toggalu mënut a yàgg kon ñu jàpp ne sëñ bi bu waxee tawakkul gi mu ci namu mooy ku ne nga def sa responsabilité li ñuy wax chance de responsabilité li nga war def nanga ko def ba mu baax nga assumer ko yàlla bàyyi ko la nga mënut mu àggale la ko loolu kon fenn ci fenn ci ci bay di mu wax. muy te tawakkul nag yàlla moo tagg na leen inna allaha yuhibbu mutawakkilin yàlla bëgg na ñi nga xam ne nii dañuy wéeru ci yàlla bu ñu defee lañu war def ba noppi bàyyi seen borom tabaaraka wa taala yàlla dana fay ñooñu mbaax lu lañ koy firee mu ne ba tey nga am ku doy sa nga doy sa bopp maanaam nga gëm sa bopp wax ñëw na ci xasida gi ci ndénkaane gi gëm sa bopp mooy nga gëm sa effort personnel gëm ne yàlla dafa la wàcce ngay doomi aadama fa jànnaa sama basiran nga am xel am euh, bët am esprit de man mën a xàmme lu baax xàmme lu bon xam penku xàmme saw xàmme ndajoor xàmme càmmooñ lépp nga xam ko da ngaa war a jëf nag bu la yàcc rek bàyyi si bopp mbir mbir doomu aadama moo tax mun wala taru min xëyri xadaa watar bu sàkk keneen ku dul yàlla mu faj sa aajo ndax ku faj sa aajo tey it ëllëg dana fi jóge yàlla kott dong képp moo fi nekk jëm ëllëg waaye keneen koo mën di wéerlu bu dee bant sax bu yàggee dana maxe ab bant bu yàggee dana maxe bu dee tabax lu mu reey reey reey nga di ko yéem yàgg yàgg dana mos a def man naa fa nekk suuf adduna lépp lu fi nekk moom fanaa la day jeex lenn rek moo dul jeex mooy alxu yàlla waaye lu dul yàlla dana jeex moo tax am na ko dana wax ne sax adduna day boo ko mënoon day boo dox ci suuf si na nga dox ndànk ruway dan ah maa azunu addimal adilaa as addaad ah wa xabin bina wa in xaba wa in xadama aadu awan ab abawal ajdaad mu ne fekk aduna yàgg na ak lu mu yàgg yàgg ak lu métti métti jàppal ne foo teg sa tànk suuf la ndax la fa nekkoon daama bax kon képp koy wéeru na nga wéeru sa effort personnel da ngay xëy di liggéey na nga fexe nga liggéey nga mokkal ko xereña ko bu baax a baax ndax yàlla sopp kuy jëf te mokkal jëfam mokkal jëf dafa am njariñ li nga def da nga jàngale na ko xereña bu baax baax man ko bu baax boo nekk classe na nga def lépp élève comprendre boo yoree daara jàngal tëral ay xale it na nga def lépp bu fekkee ne ngay fecc sax ñu comprendre na nga fecc ndax métier maa ko laaj ndax jàngale aar la bu fekkee ne na ngay daaj ay pot na ko man bu baax a baax na ngay fexe pot yi ngay daaj bu ci yaakaar kenn na nga ko man bu baax boo jaay gerte it na ko man defar sëñ bi li muy jàngal gis bu ñu ko defee projet de société la boo xam ne que ni waxuma la tubaab mi mën doxal àdduna sépp lay doxal ndax képp cay gis sa bopp li mu wax ni mu fas lool daa fees dell kenn mënu koo mënu koo jeexal kon muy wax ne nit ki na nga am jël sens de responsabilité gëm na yàlla mooy faj aajo yi gëm na yàlla moo yor mbir yi payit boo ko defee ba nga am fit wa min si laa fan darar tayit boo ragal dara kon ci yàlla ku lu jugu yàlla lépp lu bàyyi ci yàlla jàppal mënu laa lor loolu taw it dëgg la dem ba nga xam ne gëm nga ne yow bu ñëpp fexewoon dala fexal it muñ laa muñ laa dóor yàlla misaal na sallallahu nit la ba ko ba mu génn dem nu mu mujj wa maa ram isam walakin laa rama wa maa rama isam walakin laa rama la ko yàlla wax ah mënu ko yàlla mënu ko sànni woo yaa sànni waaye maa jam yaa sànni walakin laa rama yàlla moo jam ndax wenn xel nga sànni ko mu faagaag ay mbooloo mbooloo loolu xar baax la kon loolu ba tey yàlla ma ko defoon tey tey la fa gën a nekk pas-pas mooy manqué rek waaye ku am pas-pas boo àggut da nga jege ku am pas-pas boo àggut foofu da nga xeeñ foofu kon pas pas le bi jangale bëgg kenn ku ne gëm sa bop gëm sa bop moy li nga def nga xamne nit nga yalla mo la sak bi ngay juddu tagul kenn mu nga nekkon ci ak lëndëm ci sa bir fu lëndëm tris mu la fay fek di la xéewalal ba nga juddu ba nga juddu mëno dara ñu fab la ba yag nga yootu ba yag ngay ram ba yag nga juk di taxaw di daanu ba yag ngay dox ba yag ko dàq do dab yalla ma defal lola man na leneen lepp mu defal lako kon day wax ki nit ki na nga wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala moom la taltafit illa wara inna la wara lam yamliku nafan wala dura yura lu am solo bul gestu mukk ci minde fi bul gestu mukk di sukkandiku ci kenn ndax nit ñi day lam lañ wax lam yamliku amuñu te duñu am mukk sax nafaan wala dura yura amuñ mukk it te duñ ko am mukk it njariñ ak lor guñ mëna wone kon bul bu jàpp ne nit ñi bu la bàyyee nga tawax déedéet na nga jëflante nit ñi nga war jëflante ñoom wante na nga am pas-pas bañ a sukkandiku ci kenn di nangoo góor góorlu di nangoo liggéey xam ne lor yàllaa ko yore njariñ yàllaa ko yore waaye li xew léegi bu xëy sa bopp métti sax nga ne xamoon naa ne diw moom mooma xool diw xool na ma bokkaale bon a bon diw moom a xool moo tax sama bopp métti nga xëy fakkasalu bi may génn kay diw laa desenteeg xamoon naan li mu ma ñàkk dal bu suma bu tisee sax nga ne diwul diw moom moom ma solo moom ma moom ma sànce nga moom ma catu nga ne classe am amoo moyen diw moom ma catu examen bi doxut diw moom ma catu wala wala diw moom nangam nangam déedéet loola ay bokkaale yu bon a bon la ndax doomu aadama yi buñ mënoon dara fexe ba doo sax kawar sax kawar kenn mënu la koo teexañ oxygène bi nga noyyi kenn mënu la koo teexañ nga noyyi ko boo watoo buy sax kenn du ko yëg ci xewu suñu borom la bokk yo xamni kenn mu lu ko tere boy noy kazalik bo bëgg tour ndox mo la monté appareil bo xamni mo la koy yëgal kenn du ko yëg ci sutura suñu borom nga jóg ndànk dem defe ko ñëw tuwaagaat bu ko neexon mu defal mbiib goo xam ne boo ko def ñëpp koy yëg xam nga bëgg def loola kon yàlla lim defal do aadama adamay wa in taudu ni'mat la la tuhsu tuhsuha al-quran waxon su ñu ko bëgge lim da ngeen fanan da ngeen fi yennu da ngeen fa am ay ati at waaye xewul suñu borom yi sew yi sax mënees ko lim bi gëna ndaw rek da ngay jàmbat na man yuruma dara wante bu leen di wax dakkas baaraam jaame ko nga lànk koo wax jaamu baaraam bi million mënu jaame sama baaraam koo wax dakkas toogi toogi tuut gi jox ma mun na jaay ma ko kon ki am nga milliard kon doomu aadama wërta jàmbat doomu aadama wërta ragal doomu aadama wërta jiiñ kenn eh, lor ak njariñ yàllaa ko yar si mi jàngal na ko mu ne bal waccal cam bàyyil plutôt na nga na nga gis say mbir ci borom mbir yi moy kan zul wal ikram ki nga xamne ki que ni moo yor lépp ki nga xamne ni ki mo jar wëru ki nga xamne ki ni ku ci wéeru ku la ba wax do daanu moy urwatan bo xamne lan fi saama laha du dag du fof du yokkat du du du du du du du du du ciic yàlla mo bu nga xamne du ciic ku jàpp urwatul usha go xam ne lan fi saama laha du dag du gos du rëcc du def dara kon mu ne sëñ bi mu ne na nga ngoy ci yow murid bi muy wax ak Abdoulaye Sarr wante maa ngi fàttali ba tey de lii muy wax ci ñëpp ci la jëm ci la jëm de ndax toi googu ma ko wax day mooy vous vous la ci namm yow gi mu ko wax mooy yéen bu ne ko toi mooy vous bu ne ko antam mooy antum mooy naxnu ñun ñii mën ak yéen kon kenn ku ne jàppal na sëñ bi yow lay wax ak mu ne ñëwaat na ci it ci li wax ne day bàyyi day tere ci tomb benn tomb boo xam ne que ni day tere nga ànd ak ay mooykat yàlla tomb ba am solo la mooykat yàlla mu koy ànd ak moom it ah boo mu yàlla gaa gaa dañ la ko jiñ de dañ la ko jiñ de ndax mooy yàlla lëndëm la te topp yàlla leer la lëndëm ak leer nag dañuy puusante comme acier dañuy puusante duñ duñ laalante ñoom ñaar booy ànd ak kuy mooy yàlla day mel ni nga ànd ku jàppar foofu rek fu mu taxaw nga taxaw fa duñ xam ku ci xeeñ parfois yooyu ñaar xanaa nga wax ko ku kuy mooy yàlla nag la mooy mooy yàlla mooy li yàlla tere nga di ko def xam nañ ko lépp la di ko nëbb rek xamal ne jàppal ne loola moom rafetul doomu aadama lépp la di ko nëbb rek na jàppal na loola baaxut te boo ko nëbbi mën na nëbb sa conscience sa xel yedd na la sa xel yedd na la de wax na la bu ko def de am beneen xel bu la defal am ko fa nekk da la yedd ah sa waay tey nga bañ def lii bu ko jël bu ko coob bu ko këf nga ah jëlal bul bu am problème def ko jël ko ba nga na ko pet boobaa nag yaatoon sa bopp waaye am na ku la tere woon yàlla defal na ci machine boo xam ne que ni day ñëw pour équilibrer muy conscience wala ko woolee beneen ah, mooy euh, ko ni ko naf si naf si wax rek bu dee philosophie dañ lay wax na mooy la moi la ça bi lay wax defal ak bi lay bàyyi lu axaan tudd na ko jàngal na ko kon nit ki kon bu wut xarit na nga wut xarit boo xam ne que nii fu mu jëm mooy jaamu yàlla xarit boo boo dee ndaw wutal xarit bu nangoo jàng nga ànd ak moom boo dee ndaw wutal xarit bu topp waajuram nga ànd ak moom waaye boo àndee xarit boo xam ne topp waajuram nan la yow yaa tardé foo nekkoon sa yaay yow de yaa yaa ko dese nan dem doxi api app suñu happiness sa yaay toll def na ay jamono ba mu jeex bul topp kooku bu naan la ku fi ku fi nekk mag xale nga woon déedéet am ñoo xam ne ban bejaaw ba màgg mus ñoo def fi xale de du ay wax la rek de ak ku ne ku ci gudd bi am ci gàtt bi déedéet en am na di gudd gàtt digg léegi la moo tax ñëpp ne ci kaw ci gudd gàtt bi rek bëgg ñëpp bon mënut a nekk am na ñoo xam ne nekk nii nekkuñ ca kaw nekkuñ ci suuf ñu ci diggante bi boo dee ndaw buy sàkku xam-xam na ànd ak kuy sàkku xam-xam boo dee ndaw lu jaamu yàlla nanga ànd ak kuy jaamu yàlla ak dërëm ak dërëm lay wecce ah ak dërëm ngurd ak la mag ñi daan wax waaye boo jëlee sa or wecce ko ko përëm donc nga ko rëcc mu mel rek ki ki dem yor gileem dem ganar weesu ko gànnaar gànnaar gu wopp kooku na kon kuy àndandoo na nga wut àndandoo yu baax yoo xam ne que dañuy duñ mooy yàlla moo mu ne ko wala tuxaalitan zawil iziani bal firra minum kullama ahyaani da koo taw wala tuxaalitan bul jaxasok bul jaxasok bul romantek bul togalé ilal darura bu fekké mënut a ñàkk fa ñen bokk place boo xam mënut a da ngay bokk auto bu ngeen tok wala ab boutique bu ngeen di wala marché wala classe wala dara loolu mënut darura la mënu fa ñak tok waaye da bu fa yag ak mom alquran nako fala taqud ba'an zikra Alquran jàngaloon nako bu yag téré won nako kon señ bi lepp lu wax rek dafa dëppoo ak alxuraan dëppoo ak hadis Cheikh Ka daan wax né bamba bu ne mane rek xamal ne sallallahu alayhi wa sallam moo ne mane sallallahu alayhi wa sallam bu ne mane yàlla moo ne mane ndax maa ngi dox anil hawa kon lu wax rek noonu la fu mu joxañ lool la lu mu tere lool la daw leen ko mu ne nag ñun ñii man mi ak yéen ñii nee na nañ daw fu ñu toll ab mooy côté yàlla nañ koy daw ni ñu dawee seytaane nañ koy daw la wax de firram minhum kullama ahyaan bis bu yàlla sàkkare boo xëyee na ngay daw seytaane na nga daw kuy topp kuy mooy yàlla kuy mooy yàlla mooy yàlla xam ngeen ko wax naa ko sànq junj naa ko mooy lépp loo def di ko nëbb rek xamal loolu rafetul di xam na loolu baax na jàppal na la baax na kon képp ko xam ne que nii day mooy yàlla bu ko ànd ak moom bu ko jege bul xaritoog moom bul koppanteeg moom sallallahu alayhi wasallam waxoon na mu ne xarit ak moroom ja day mel ni ñaari dàll ak moroom ja dàll ak moroom ja moom gënante wuñ lool kon nga bàyyi xel ne ànd ak kuy mooy yàlla day taxa mooy yàlla wala tujaalis سن سوان فتنا عمل بعلمي حقيقة ولم يعمل سن بنت دفهم لوجيك بول واخا بايل نال جابال بول واخا بايل لي دنا واخ جابال تا لام لاي جوخ جابال موي گن فوف تيمير جوني مليار لام لا بايلو كو مانا جانغال لا بول واخا بايل رك نكو لام لاي جوخ دنگ ياي وايو سن بول واخا بايل رك نال جابال مون لا كوم ترنال توك كي لغي دل توك تام لو خامني كني دام خام خام تاي جيفي خام خامم am xam-xam bu baax te di ko jëfe xam-xam nag baax na waaye boo ko jëfewut daa mel ni mbaam am mat wala sagar wala nga mel ni sondeel di taalal nit ñi lakk sa bopp kon am xam-xam li ci ëpp solo mooy di ko jëfe alxuraan li mu baax baax baax baax boo ko jàng jëfoo ko it amul la njariñ da nga bokk ci jaal xaan waxoon rek ñi nga xam dañuy digal nit ñi baax pare fàtt seen bopp mu ne ñu xanaa afala taqiluuna ñu ñu ñoo kanasu dëgg dëgg dëgg nag yaa ngi digal nit ñi baax guddeeg bëccëg ba pare nekk ci lal neex afala tànqiluuna yow yaa yow yaa koyan yaa gàtt xel yaa gàtt xalaat sëñ bi nag moo tax mu ne na nga toog kon koo xam day jëfe xam-xam xam-xam bi mu ci namm nag mooy xam-xamu diine bu ci njëkk xam-xamu diine moo njëkk ci xam-xam yi xam-xamu diine mooy tax nga xam fi nga teg sa boroom mooy tax nga mën a jaamu yàlla sëñ bi sax dafa jàpp ne xam-xam boo ko amee te rëglu yàlla doo boroom xam-xam am na ko fa fu wax mo ne ki xam regul regul yalla laysa bi ay wala wax funun ndax xam-xam boko jangé deug deug deug ak bu mu mën di doon dalaa war a bij jëmal ci ragal yalla nañ jël misal science bi nga xam amut dara al diine nga jël ko fele isolé ko ber ko nga jang ko boo jang embryologie manam doomu adam ni mu ci biir bi nga di ko ba xam na fa nekké ba xereñ ci ba genn ñu ci waxal lako da nga wara gëna gëm yalla da nga suwat ngay jàng ci eh, ay affaire cosmologie mooy adduna si ni mu ni mu ni mu dëndoo ni mu bindoo asmaan suuf nga jàng gis yàlla wax ne la asmaan suuf dafa taqaloo woon eh, fa tax naawuma ñu tàqale ko da war a gën gëm yàlla ngay jàng océanographie muy ndox ba xam ni yàlla jàngale géej gi ni mu duusoo ak eh, dex ak géej ni ñu tàqalooyee te ndox duñ dañu tàqalante waa tàqalo duñ jaxasoo laa laa yëpp xiyaani ak barsàq bi da ngaa war a gën gëm yàlla boo jël rek nga aay ca da nga war a gëm yàlla boo jàng philosophie sax di jàng existentialiste ba sës waaye day jël di jàngale bëgg xam yàlla te moom yéefal na sax gëmul yàlla mu jël ab bant bant bi mooy matière première mu li bant la bant bi menuisier bu ko defaree mën na ci defar lan ak tabouret ñu ci toog keneen mën ci defar ab buntu buntu tabouret bokkul bokkul li ñuy def de bunt bu ko tax a jóg tabu tookaay ko tax a jóg noonu la ko toppee di dem ba yàgg nag mu ne kon nag yàlla mi defar asmaan ak suuf day waxul yàlla sax de waaye xam naa ki defar asmaan ak suuf day kooka xam naa ne ko aay la ndax boo gisee bant bi nga mu rafet loolu danga hé mën si mu aay kon nag asmaan si ni mel nii ak suuf si ni mel nii ni mel kooka defar day xam naa ne ingénieur bu aaya aaya aaya la ko gëm na yàlla kon xam-xam da la war a bijji nga gëm si borom tabaaraka wa taala ak boo ci mën di jël rek ngay jang euh liñu woyé afri asma bidu bidu wi euh astronomie wala astrologie nga gëstu ci ba géejal ñu dégg ci borom nga jang liñu wax révolution ak rotation muy ñaari phénomène suuf ci day wër bopam di wër planète bi jant bi day wëndeelu bopam ak di wërat suuf ci ñaari mouvement yu nga jang alcorane jangalat na lako ko ci suurtu yaasin wala wasamsu tajri li mustaxrin لمسخر لها ذلك تقدر عزل العامل عليم والخمر خضر من الناس أتى ذكر الوجود خديم لا سمي بأن تدري خمر لا سابقنا وكفيس بي يصبحون صدق الله العظيم kon ngeen xam ne kon suñu tabaaraka wa taala bépp xam-xam boo jàng rek ba géeju sa boo ñëwee daf laa war a tax nga gën koo ragal maanaam ni mu tourné jant bi day tourné fi mu jaar weer yi tourné fa mu jaar biddu bi di tourné fa mu jaar te benn laa sa morom te te biddu yi ni ñu la ngi seen ñu lawee ni ñëpp jant bi ay ponkali ponkal lañ imaam Xasaali radiyallaahu anhu bamu jàngale ci sens jëm ni mel ni mu naxaatee ci la sukkandiko won da xol bidu bi mën sew ci mom lol te xam na ne bidu lu rëy la mu tok gis ker gi ker gi doxut mo ne kon ker gi kat moom day dox waye bo xol sa bët day doxut sam fa ab bant ba yag mu romb ko mo ne kon bët day naxaate kon xam-xam bo man experimenter rek beugay yu rek da la wara ragal yo si borom tabaaraka wa taala xam-xam bu mu man doon rek la la wax bo dirul yàlla rek xam na wallahi sabbi alim de dugu ci yow wala af naa ko doon da jeexal fànn yi mboolem ñi politique ak ñëpp la ñu jàng xam-xam ku ci ne da dem ba gis sa yàlla ci loola kon moo tax sëñ bu tubaa sëñ bu tabaaraka wa mu ne sëñ bi mu ne mu euh, wax yàlla rek la waxaat fii mooy kon deel toog ak cam soo xam ne que nii dafa am xam-xam dëggantaan jóob wala dëggantaan jaay te du ko jëfe wala mu yemee te jéngu mu ne ndax day mu lay gën a sawarloo ci loola toog ak boroom xam-xam dafa am njariñ mu ne ndax boo toog borom xam-xam day danga roy ci moom te boo roy ci moom da nga gindeeku mooy li ma waxoon sànq rek képp ku jaay parfum nga ànd ak moom boobu parfum da xeeñ parfum da da nga da nga xeeñ parfum lu neex képp ku jaay xasaw nga ànd moom da nga xasaw boo bëggee xasaw dem ci gétt mbaam xoo nga toog fa it boo soobee yàlla say bakkan dana sakk ndax yaa fa dem nga toog fa kon nag ki nga jëkkiwanteeg na nga ko simbi tànnal na la ko moo tax mu ne la nanga nanga na jékkee koo xam ne que nii borom xam-xam la buy jëfe xam-xam boo ko toppee nga roy ko ko képp ki nga toog ki nga toog ak da koy roy mu ne loolu bilaa miraay werante ne ko ci innal mujaalisa lu si daal bi mu jaay bilaa miraay gis nga xale yi sax xale yi bëgg bëgg football ñoo bokk grand place xale yi bëgg football bëgg football ñoo bokk fu ñu waxtaane Chelsea Real yu la ñu waxtaane Liverpool Arsenal mooy seen mooy seen yitte mag ñi bëgg bëgg bëgg diine yit ñoo tok waxtaan daayira bi bu dee xale jigéen ñi xam mo dañu mo dañu intéressé ñoom mo dañu waxtaané raya hmm di dëng clip bu bu bu di génn temps yi yooyu lañu waxtaané bu dee ñu bëgg sport ñoom tamit kasaalek football wala box ku ne rek ka ngay toog dañ koy nuru natri jangal na natri bi bo xol xoolee picc ramata ñoy and piccaatur yi ànd segal yi and ah akalaw yi and ciile yi and ci euh, euh, mbaam yee ànd xaax yee ànd ku nekk nga bokk nga ànd ak loolu jàngal na ko kon àndandoo ku ne ka nga ànd ak dafa mënta ñàkk nga tànn ko mu bokk ci li parents yi war a def it parents yi kenn ku sa doom nga xam ay xaritam mu présenté la ko présenté la kii mooy sama xarit nga xam ne kii lay ànd ak bu fekkee jukkoom nga ne ko ah bu ma sañoon day doom wax dëgg yàlla day nga seet benn ànd kii lay jukkoom neexu moo xam xale bu góor la moo xam xale bu jigéen la wala sax mu ñëw ne la papa de kii laay génn nag nga ne bu ngeen génn fu ngeen jëm lu jaara laajte la fu ngeen jëm ñun nag wala tabar na tabar jaat ula na génn wax xam na fi bu tukun na saxal nga ne génn nag ah jar naa laaj foo génn fu ngeen jëm dañ ko war a laaj fu ngeen jëm bu ngeen génn ak lu ngeen di def képp ku ne par responsable da nga bàyyi xel loolu sa njaboot njaboot léegi nii xu ñoo yar de ndax dañu bari ay fem bari ay ruq bari fuñu jaar bari ay ay ay ay ay ay raw ñu loolu sax ci xel akhlaq kon lu ñu bàyyi xel kon señ bi digle na kenn ku ne sa njabot ña ñu toog ak na nga xam ñan la na nga dem grand place le nga seeta leen école day fa dem di xol sa doom xam fan lay andak ban groupe la bok ñu mi andak nga bayi xel loola ndax day tax nga mën ko yar bu dee sa soxna it naka noonu léeg-léeg nga gis jeeg bu sëy ci koñ bi sëy si baax lool xëy soppeeku daa màggatam yoor mu fi daa na ko yow fii nga toog rek yow da bonle nga yow su jëkkër ñi nga ñi bàyyi rek am na sunguf sox boo ko joxoon bu ko naanee gën laa topp nga toog fii rek commencé na laa dugal ah loolu dafa garaaw ne ko yaa wi diw de man loolu wax dëgg yàlla lu maa jóg laa toogal fii rek ëllëg muy waxaat la ko waaye ku ni nga nekk rek acca bismillah ëllëg nga dem commencé wut ay wut ay sunguf di commencé jox sa borom kër yaa ngi ni yaa ngi commencé jox tooke da ngay xëy rek biir bi neewi ndaka yoo da ko jox posam kon gis nga àndandoo dafa am solo wala it ki nga ànd ak it bu dee xale groupe bu xale la mu tux cigarette bis mu jox la xëccal benn yoon nga xëcc boo xëccee xëccaat ëllëg mën la booy bii dafa nooy am bu gën a dëgër mooy ban mooy ñax mi nga mos ca booba boo ci mosee bu ëllëgee nga ñëw mën la man kasawaay aw ma ko tey de nga dem seen kër fekk si cene yaa ngi sàcc ko sàcc fa li commencé ak délinquance sa yaay moto ceen nga génn ci mbedd mi koo daje këf portable am yàqu nga moo sëñ bi li mu jàngale dafa am solo daa mel tey la ko tey la ko wax dañ ko soxla lool tey jii ñëpp war ko bàyyi xel ndénkaanam yii niñ ñu jàng xasida di ko jàng lañ war di ko nafare ndax day defar suñu dund ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel kon ne na bu baax loola da caa bokk moo tax mu ne fu képp koo xam ne day toog ak ak mooy katab yàlla ah la budda an yamila lil isyan mooy li ma wax léegi rek képp koo xam ne da ngay kuy xëcc di aj bu yàggee nga xëcc ba sax kuy sol pexem nga ànd bu ànd ak mooy sol pexem buy dangal bi yàgg da nga dangal bu teg garafaat bi nga garafaas buy mees bi yàgg da nga mees wax ji da leer a leer koo xam ne da dem daayira yiw di jàng xasiida di moom xarit moom ah yaa ngi ci yoon wa de ya amna fi waxtu sukhar wala tujal suma jaal sa saxaawa mooy jotaayu texee di fa ñu carte ak carte xew legi ah wan wan box xaw han ah wan wa très bien mo ngok aha lulu carte la gu graw guñ masque rafetal ko rek moy pari foot rek le gisa carte li tax bon day tayalo nit ndax sa su xet yak nga gagné bala ngoon jot carte day yàq askan day yàq société te boto grand pas feneen carte bu yàgg nga carte nga jouer bu jouer gagné tey fuk junni jeex bo boo do do doo day xété dina rek di carte kon li wax ni dafa am solo mune kon waman yusaib aliman qad amila bi ilmi laa budda an yaxtanima képp koo xam ne da nga ànd ak boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam par force da nga da nga tonawu da nga mang ci mbaxam goga ndax borom xam bu jëf xam-xam day du mo yalla amu jot ak grand place amu jotam de bu fekkee da nga war def def bo liggéey nafar alquran jang xasida am say waji ko toppatoo len bu fekkee da nga amee donc toppatoo len amu amu jot ak grand place bo ci bol sport nak di sport yi nga sa amu to jot to jot sa emploi dans la fesse del nga am sëñ bi war ko ci to jot ak maanaam jot a taxawal amutoo ko bu dee xale bu jàng it amoo jot a taxawaalu boo xëyee leçon yi bëri na wala daara ji nga nekk bind yi bëri na nga war a taxani ba naan taxani léegi taxan amut waaye bu taxan amut it leneen am na mooy nga nafar jàng wet amootoo jot surtout ndaw ndaw wut a fonk sànni waxtum ndax bu la rëccee pare nga ci gis nga boo xasee ba am 40 ans jëm 50 ans eh, eh loo jàngutoon nafar rek moom ba nga xam ne moom ba nga jéem a fexe leen bu ndax buñ xëyee nga am si woo ba taxaw sa pet sa wet wala ñu la gas bi jeexna na facture bi na kon jangi ndaw mo koy def kon bo nekké ndaw profité and ak ñi jang nga gaaw jang bu baax am xam-xam bu baax man fa gus ëlëk bal nga tabja ja bala ngaa ja wala bal nga nekk ci sànj feeñaan na ci ci mu ne war ci nit mu mu taxo mu taxo sunna Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ak a bëgg sunna ak sunna woo ñi ko ñi ko xam ci mbindam sax sunna rek lay woote ay bidaa yoonam nekku ci ay sos yoonam nekku ci buñ fàttee fañ départ mu jaddit lañu waxoon mu jaddit mooy lan beesalkat nekkul mub di de mooy ci rénovateur mooy ko lu ràppoon nga fëggaat ko sosut sosut neen sosut waaye jum beneen bëgg fay xam ngeen jum moy liñu talé da dana bëgg fay bay gem mu boyal ko bam tak ba yànj moo tax mu santane ci dénk bi di wax na nañ jël sunna lool da ak addis addis bo xamne ke ni nii umul mu'minin Aïcha radiyallahu anha moo ko solo mu ne man ahadis fi amrina hadha ma laysa min fa waraddun képp ko andi ci diina ji lu ci bokul dañ la kay delo kon sunna moy lan moy sunna بين الملكة القولية ولا فعلية ولا تقريرية sunna bu saa salaam wax na def leen nangam loolu sunna la wala jëf na dara sunna lay nekk wala def nañ dara ci kanam waxu ci dara tëriwu ko sunna lay nekk kon ñetti xeet sunna yi moo gën a siiw kon mu ne war na ci ab julit war na ci murit bi mu ngoy ci sunna bañu sos dara ci lislaam beneen riwaaya mu ne man amila amalan laysa alayhi amur naa fa wa raddu képp muslim masala boobu mu ne képp ku jëf joo xam ne que nii dafa sosu ci suñ diina ji dañ la koy sànni delloo ko sa kaw moo tax suñ bi de mu ne ko su ma àlleeka hayu al xalil bi bi rasulu mu ne ko yow xarit bi mooy kim ji wax ak mooy Abdoulaye Sarr mooy yéen ñii toog mu ne ñun ñuy toog fii di wax mu ne na ngoy ci li sallallahu alayhi wasallam indi won da ngeen ci ngoy ci sen bëñëb rok seen képp ko bu dëgër góor gi nak neena ma fim toll ni jamono fim toll ci yaqku yaqute bu ñu lekk ab nañ upp ndab bu dem bo ñu bari lo kenn ko upp sos ko ful dina ci toll maam dañoo sos sos kër yee wax yi bari bari jàngkat bes yi lu ñu andiku masab yep ñew ci bir dekk bi ci réew mi nag gàññ sëñ bi te dénkoon nañu ba tey ci ndinkaane mi waxoon na nañ jàpp ci masab imam malik mooy ci bu dëgër loolu ci ndinkaan yi ndinkaan ci la bokkoon kon jàpp sunna dafa nekk loo xam ne que nii dafa war dafa war yéen saa sallam santaane woon ko sëñ bi it santaane waat na ko dàgge wàcce na ñëpp mooy ci sunna mu ne nag boo jëfe sunna yi ba tey bul yokk bul wàññi bul ngottu bul ëppal boo waxee ñu ne murid day xër déedéet murid day xër lu ci wax yi bees la bokk ci bidaay murid la bokk yi gaa yi kere bu yàggut ci la bokk murid gu bees la bokk day xër lan day xër waaye daa am fu mu yem bu la waxee jàpp lu nga jàpp ci wóom yi kay waaw lu lu koy jàpp nga may ëpp na bu la waxee masaal nga ma nga ragal dox ga ëpp na bu la sëñ bi santee dem xel xom nga dem xel xom jóge fa jàll feneen ëppal nga xel xam la yebal dem fa rek bu wàccee nga ñibbi si bu la woor looxee ak loo ñeme ñeme koor bu jant sooy dogoo dem ba quatre ba trois heures matin nga dog wala deux heures ci guddi dix heures amatoo koor kon ëppal baaxut moo tax mu ne wala tayji bi taji bi zaydin aw naqsin ila sunnatul qara bul yokku bul wàññi ci sunna si na nga am képp ci digg bi na nga nekk mutawasit na nga nekk wusta ci digg bi bul ëppal bul ngootal ab ab jullit ab murit mu ne noonu la war a mën mel wërta ëppal wërta ngottal li la sant nañ ca teg sa tànk bu ko yokk bu ko wàññi moo tax mu ne kon war na ci taalibe bi mu jëfe na sunna na mooy li ma wax sànq lépp loo xam ne sallallahu alayhi santaane woon na ko walla mu jëf ko wala jëf ko ci kanamam wala ñun sor nañu ñu gis suñ kilifa bi baax di ko def ñu roy leen ci moo tax ñu wutab sëriñ ndax ñu sa sori nañu lool saaba yi sori nañu lool wante boo wutee sëriñ nga jox ko ca moom lu la jaaxal nga laaj ko ko de doo mës a réer loolu sëriñ bi jariñ sëñ bi sa diine lu la ceel wump rek dala da ko war laaj sëñ eh, ku tedd ki nu daan def képp taalib mosu nekk ci moom dala daan digal di woo boo tisee sax waxu alhamdulilah dana la wax dana la wax wax alhamdulilah ndax lee daan saytu ndax nag koo jox ak alaaxira da nga ko war laaj ci seen mbiri diine xam fi nga teg sa tànk wante xamoo di jaxase rek loola kenn lu ko baal ci misaal ngorom ab feu rouge bëtt ko gendarme bi jàppale bu dee ku lewet nga ne ko man laa baal man laa bàyyi mu ne waaw xanaa gisoo fa bi ñu defee nga ne ko man gisuma ko woon man laa bàyyi waaye bu di pat jaar mu la yaa ko tey yàlla nag nu la mel boo defee mu baal la nga mu defaat mu baal la daan ki daf may ñaawal ki daf may ñaawal daf may kokkali moo tax mu ne bul ngottal bul ëppal mu ne faalam بان كل غير في اتباعه قطعا وان كل شيء في ابتداء خمل موسني بباخ غدي كنت جفكو توب نديغل داي توب سنة مبولم يوي أدناك على آخر تلانيك موچو تاي جي تلانيك موچو ألك تلانيك وانتا نك توب بدا أو أي كوتو دونغو لي أندل لو ديغ بكو ديف لو أم جامو لأجي سمبولي سمك كلاس جي mooy xale ndaw yi commencé dugg ci ay ay ay wérd ay wérd bi su yàlla sàkk ñu wax la ab baat bés nga koy wax yaa nangam yaa xër-xër laa riiru yaa rëx-rëx laa riiru lu ne rek nga di ko wax ñu lay def loo loolu ñàkk topp sunna la ñàkk topp sunna la saa su xëyee gis benn baa mun la hii am na boo xam bis moo ko yënguloon kay sa waay léegi nga tàkk nga ne ko ban la mu la mooy yaa dara dara yaa riiru ngay dara dara rek boo léegi mu nga sonn gis keneen mu jox la beneen bàyyil buubu waxal yaa rëx rëx raayalu nga wax loolu kenn xam ay baat la mu doon gis nga lu lu phénomène bi fi xew la lu jar a bàyyi xel la lu jar a yee xale yi la gis nga maa ngi fi nekkoon li ñu am di naan jaamu yàlla rek la naan ak ak basmala latif yu sell yi naan yem waaye turi ñaa ngi xew yi bëri yi nga xam ne kenn xamul lu mu doon ay yaa jam sa yaa hiiloog ay yaa rax sa kenn xamul lu mu doon nga topp ko loolu ay ay création la loolu du sunna loolu du topp sunna loolu ak bidaa la kenn xam fu mu jóge kenn xam fu mu jóge am ci loo xam ne ak njabar la sax far ak njabar nag mooy lan boo leen njabar gaa yi seen xel dem ci dem ci sunguf ak reen déedéet léegi lu déggul lu déggul sariya de sànni li mu dégg li mu jàppal njabar mooy lu muur xelam doomu aadama di ko def loolu lu mu wër def donte alxuraan la sax doon tabati daa ngi bind sax boole ko ay ay ay bagage wala yeneen ba not ci ni sant ko lu mu wër def loolu njabar la waaye boo gasee ren wax si saa la moom sax walaal Muhammad jox ko ni mu naan ko wér ko wér loolu du njabar. nga jël ab ab loxoom lu métti mu ñëw nga fas wax ay baat yu bëri bëri fasal ko loolu du njabar wala ab yax galan ko nga wax ñetti baat taf ci ndox mu naan ko du njabar loolu sell la loolu ci sunna la bokk sallallahu alayhi wasallam mocc wax na ne mos nañu gàdd dox ci àll bi gis ku euh, jaan maat ci ñi mu am ku ko ci lugg tarifaatee mu wér mu jox na ay gàtt mu ne jox na ma sama wàll dafa dagan loolu ko nekkut loolu nekkut nekkut euh, euh, maanaam bidaa am ñoo xam ne xamuñu bidaa loo wax ñu la bidaa la boo solee xaftaan bu ji sax ñu la dangaa bidaa ngay def sa xaftaan daa gudd bopp déedéet maanaam tënkuwoo ci sol mel yére dañuy tere sax dañuy tere sax ci ci xel ngay sol benn yére toujours rek ndax loolu dafa jëkkut dañu bëgg ngay soppi tey sa sa sa sensé tey boo solee carax tey ëllëg nga sol amara kiis waaye bu jommees bopp sol ay carax bañ tegal ko fa ca kaw da nga mel ni kon nekkutu doomu aadama mu da nga mu mu tas bopp amu tasu dee barti boo tàmbalee gars yi sol mbasin rek photo yaa ngi ges neeru am nga problème loolu dangaa mel ni ku kere sa sa bopp bi daa ndax boo liggéey booy génn ngay xool gars yi est ce mbedd mi kenn nga fi te di yurndu gars yi bala ngaa génn ndax rusu génn ndax soloo ges neer tey loolu amutoo indépendance da sol ges tey ëllëg nga sol ab waal ëllëg nga sol ab xartum ëllëg nga sol yaa xam ak ak xarnaawal na jot rek na jot waaye bu fexe ba tàmbali nit ñi benn affaire rek waaye ba tàmbali nit ñi di takk foo toll takk cheveux naturel am nga problème am nga bàkkaar ndax dëgganut naturel naturel mooy sax ci yow naturel ci ka koy kam nekkoon foofa naturel la fa woon waaye ba nga ko ni ko naturel naturel mooy loo xam ci bu ñu ko dindi nga ne is bu ko dagg ci tubaab la ko loola naturelut lañ di nax rek naturel na woon ca borom wante bu di ko ci bu ñu dagg ay we posal la ko it nekkul naturel ti fa mu nekkoon dafa naturel waaye ko daggee initié woon nekkutul naturel kon ñu bàyyi xel lii mooy bi mooy ñàkk tëru tëru ci tënku ci sunna sunna loolu jar xàmmee la ndax léegi loo wax gaa yi ñu ngay bokkaale déedéet déedéet nga boo am na ñoo xam boo jébbalu sax na ngay bokkaale jébbalu kay da nga wut ko la woo mat rek xamu fi ko ñëm da wut ko loo mat loolu lu ci koy dafa rafet ñëpp am sëriñ am sama benn wax xarit nee na ma ku gëmu dara amut même ñi gëmu dara gëm nañ dara mooy lan li ñoo non croyant non croyant n'existe pas amut ñi croire croire na ñàkk croire na ñàkk croire ñi gëmul yàlla gëm nañ leneen kon koo gis am na lu gëm koo lu mu gëm amut boo topp ci topp keneen rek kon ki nga topp na tënku ci sunna ki nga topp na tënku ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ak fu mu mën di bokk boo toppee ci moom da àgg si borom te àgg rek nga bëgg si bi ko ci feneen ci feneen. mu ne lii mu wax fii nii yow Abdoulaye sar yow Mor Gueye yow Mati Fall yow Nogoy yow Fat Sadio yow Marème yow Khady yow Cheikhouna yow mi déglu boo ko jëfee ci nekk day ah la mooy li nga am mu ne kon day da nga àgg tariqatu sadati ñëpp moo leen bëgg am mooy yoon yi nga xam ne sang su baax sax fa lañu àgg fu wax ci beneen téere ca téere bi téere boobu eh, yak na xuqal buka mo ñi nga xam ni bu ñu de guddi Salma ak Layla ñoom yëngul seen jalax faale wuñ ko mooy ñi nga ham ne bu ñu tëddee guddi faale wuñ yooyu dañu xaar bu ñëpp tëdd ñu ne ñoo ket toog bàyyi seen nelaw di sikar di julli day dem ba neex ci am ñoo xam dafa dem ba jaamu ala dafa nekk nature ci ñoom bu ñu ko defee dañu am problème mu ne ku jëfee ndi mu digale fii sikkuwut li mu wax fii nii sikkuwut ku ko defee kenn mun laa tee àgg fa mu jëm ndax yow yaa yaa dawas bopp maanaam oto la boo xam ne que ni kenn mu ko téye day daw oto montagne la puus mu tàkk puus mu tàkk yaa puus bopp mu tàkk moo tax mu ne boo jëfee lii ci nekk nii lay da nga àgg aw ci tarixatu saadaat mooy yoonu sang ya mooy suhadaa yi mooy xiin mooy saalihiin yi nga dégg mooy abdaal yi nga dégg mooy awtaad yi nga dégg mooy awliyaa yi nga dégg ñooña fii la jaar ba fañ àgg waaye nag ak ka jafee àgg ndax day saa su xëyee gis lu pakastal saa su xëyee da nga gis lu yoqatloo saa su xëyee gis lu la pakastal pour bu la dëpp moom kay da am fulla bul gestu waaye nag jàngal na la fa nga jaar ba àgg fa ndax wax na la bul gestu wala taf illal waraa bul gestu nit ñi mu su waaye dafa dof moom day dëddu rek sa ndodd mu ñuy wax rek ki toog mooy wax ci kii dem yow demal wala taf taf illal waraa bul bul gestu del dem ñi wax rek bo dem ba réussir da ñëw seetaan ci la mu melni ki fi misal waji dafa taw ba tooy xepp di gépp fees mu xëy di gaseb teen ni ki da mo ñak xel mo kata kay yi deug ha de gi fess yi moy gasseten waaw bu xëy saa su xëy gaseb di gasse rek yàlla dogal bi teen bi bënnee tasanteeg loolu la ci ci nor bi jeex dégg yépp wow gaa yi ñu ne ko suwaay may ñu dox mu leen déet léegi xam ne laa def def sama plan tok fi ku ñëw rot rootaal ma ma ngoog loolu mooy mooy mooy njub njub dafa neex da ngay dem ba gaa yi dem taxawaalu ñëw topp sa kaw sa waay kaay jiituñu kaay jiituñu nag mooy gën kaay ma jiitalee kaay jiituñu moo gën boo gisee penc bëri coow penc bi bëri coow mooy ñu fi nekk ñëpp dañ naan jox leen ma jiitaleen fépp rek ñoo fa dugg ñoo xam amuñ benn compétence amuñ benn xam-xam amuñ benn man-man amuñ benn pas-pas amuñ éthique amuñ moral amuñ déontologie amuñ amuñ benn pas-pas boo xam ne nii pour jubal la lu leen jox ñu këpp ko moo tax gis nga lii fii nii wax wax yii nii képp ku kuñ jox dara moo xam chef de quartier nga moo xam chef de village nga moo xam président commune commune nga moo xam sous préfet jiitu ab sous nga moo xam préfet jiitu département wala gouverneur jiitam région wala sax ngay président jiitam réew ak kuréel koo mën di jiite war war na laa war na laa jàng bayit yi war na laa jàngal lii nga xam sens de responsabilité nga xam ne buñ la joxee it danga war a am ragal yàlla ci biir la la jox am it di diisoog doomu aadama yi am it ak wakiirlu ñépp a ci biir gis nga bayit yi nim mu gàtt mën nañ ci bind ay téere téere ndax dafa dafa chargé mali atun dafa fees dell sax ak ay njariñ yoo xam ne ku nekk dañ ci gis sa bopp ci biir ñiy naxeek ñëpp mën leen cee waar teg leen ci yoon ñiy jàng politique téere bi ñuy wax la prince téere bu siiw la Machiavel bind ko nga xam ne ñoom ñoo leen moo leen jàngal naka la ñuy naxee aw askan naka la ñu ay ñu néew ju doole naka la ñu gouverner ay sëriñ naka la ñu gouverner ay ceddo war nañ leen jàngal lii bañ xam sens responsabilité ak ak personnalité ak fa nga teg sa tànk ak ak ñu jiital la ak jëfe ndigal mu ne nag ñi mu wax nag asaadaat ak ñoo néew ah wallahi ak ñoo néew boo leen bëggoon a compter day boo gaawoon sa kaar wala sa sa place bëgg ci dugg asaadaat cee balaa fees moo tax Sëñ mu ne fa innaha qalilatun lakinnaha tusliu mara maraayu saadaha xëy na day wax téere bi ndaw na wala mu delloo ci bayit yi bayit yi tuuti na lool yi mu wax nii la bëgg a wax ci la euh, euh, damir dellu mu ne téere bi way yi néew na lool ndénkaan yi tuuti na lool waaye nag ak kam mën a defar mbiram képp ku ko mokkal sàmm ko jëfe ko képp ku ko mokkal sàmm ko jëfe ko teg sa tànk day wax na ne li nga li nga fi nga teg sa tànk moom la كن mun laa tee àgg ca kumbal yi ña nga xam àgg nga xam ne lu wax yalla ko wax buñ doxé yalla dox buñ defé yalla jëf lu ñu xool yàllaa ko xol lu satan yàlla mu def ko ñi nga xam ni dañ agal ci martaba sax bu ne woon yàlla na nga fay sawara ñu fay sawara bu ne woon yàlla na àdduna bu mu tukkeeti àdduna du tukkeeti te tax yàlla ay waxam deku moy asaadaat ay maxaama maxaama yu kawe kawala ay maratib yu kawe la yu naqré léra do ma adamay la ku dégg tasuf moko man xam moy yag ci maqaanul ilm yaqin ak anil yaqin ak fanaahu moy sang yi sëñ bi nag tracel nañu yoon ñu wara jaar bàgg ci kon ñun de buñu agut buñ ko jegewut ci ñun la wa mom day jaana wàcc na mom ne gannaawam band li mu war def def nako lim wara wax wax nako ko fi ñu war jaar ba àgg rëdd nako ko fàkk ko am leer nañ li wax na mu jënd la de loolu da ko wuy lo sax da ñëw fekk àll bi mu fàkk ko bam rafet lool ruuj ko moom set wecc def léppam leer naññ na dox leer aka yomb nag waaye aka jafe ndax pas-pas moo jafe pas-pas bi mooy tegeete rek te bañ a gestu ni mu ko waxee woon moo tax mu ne képp koo dox day da nga àgg ca sang ya sang mooy ñi nga xam ne ëllëg yoom xiyaam day ñoom dañu xaar ku leen ràmm de waaye dañuy dimbali sa sëñ bi ëllëg yoom xiyaam day dañuy dimbali sallallahu alayhi wasallam sallallahu sa wasallam da leen damoo ci askanam ñu bokk ca am na ñoo xam ëllëg yoom xiyaam si borom bi sallallahu alayhi wasallam day day leen damoo Cheikh Ahmadou leen damoon ndax li mbokk ci ci as ci ci mbooloo ñooñu sëñ bi bëgg waaye bëggul yambar yoo xam ne taxaw di xaar sëñ bi déedéet sëñ bëggul loolu taxu koo jóg dañ ko yokk dañu nekk ab gàngal xam ngeen gàngal gàngal mooy ku ne yàcc rek foo ko foo ko jëm du fa jëm sëñ bi loolu taxu koo jóg sëñ bi bi ma def sañ ci Tuubaa gi daa bëggoon mu li ma waxoon ci téere bi rek mu nekk maw dëkk mawdul ilmi dëkk xam-xam ak fikra ak tafahum dëkk boo xam ne dañ fay jube di fi gind ko di fi yokk koo ci suñu préparé ko temps la di fi xamee yàlla ñi fi nekk ëllëg nekk ay sang di ra di ramaate loolu moo taxoon sëñ bi sant ko waaye bëgguñu nekk ay gàngalem toog toog ci gannaaw sëñ bi topp sëñ bi fu sëñ bi jëm ñu jëm fa mooy suñu lépp lu yomb loolu la fëpp sëmbi bi bu mu defee pare daa bëgg ñu fam fa mu jaaroon ñu jaar fa ba ëllëgee ñu nekk ndamam bu dugalee téeméer téeméer ndam nga dugal benn ndam yokk yaay yokk mbooloo mi foo nekk nekkal ko fa am ñoo xam fu ñu dem ci réew mi rek ci àdduna rek bu ne murit la rek murit sikki ndax dañ ne di naw bu ñu jëfee rek foo dëkk kon tubaab ah waa tubaab kii nii lañ mën a mel kooku moo sedd xol sëñ bi nag sëñ nag loolu la bëgg ci ñun waaye dem fa ñu cam kii fu mu nekk ñu tubaab a cam yow kooku yow yow dangaa defoo publicité bu baax ku ne war nga koy moytu kenn ku ne war ngaa moytu ñu ñu ñu xeeb Tuubaa moo tax sëñ bi di daa sonn na ci dénkaane yii bëgg tey bu ñu fi que ñun ñii ñii tey ñu teg ci suñu tànk di ko jëfe ndax fekkuñ ko jëfuñu fekkuñ jamono waaye ñu teg ci suñu tànk ba li ab sàmm muy def mooy ñett yi ab sàmm li ci bon mooy lan loof réer ruur lurira wala luriru baaxu ci sàmm ab sàmm bu sàmmee mu loof loof mooy lan mooy gàtt yi lekkuñ ba ba ba tuuti loolu baaxut dañ koy war a moytu réer mooy lan ñëw na xare réer nañ lañ ko war a moytu ruur mooy lan dugg si la jaamur ab murit na ñett yi da ko war a moytu am murit wooto loof loof mooy lan exprime dund dafa war a dund xel mi xel mi xel mi moo tax may wax maanaam euh, jëmm ji sax garaawut wante ruur bi wërta loof dafa war di dund daa war dund am yëg-yëg am connexion ci jaamu yàlla yi muy def ci xasida yi nga jàng ba sa ruu gi dund ba dund dund ba ku la gis xam ne mii day ku dund nga donte da ngaa jeex tàkk sax ci ci jëmm ni wante ku la gis xam ne yaa ngi xëy yàlla loolu mooy mooy ab murit wërta loof ab murit yi wërta réer foo dem ñu këf la ah déedéet ab murit day way deng jàpp na li nga nekk ni lu wér péng la nga teg ci sa tànk bu dëgër doo réer ndax am nga am nga am nga kay li ñi ni ku ku ne ko diggal sa kanam waroo réer am nga répertoire am nga fotek sa tank am nga lampe lay leral men lampe ngorba foto ndugo seen am muridit worto rur rur moy lan dem tool jamur waroo yaq waroo khas kenen ku bokut ak yow li nga nek boko boko defé mu khas ki li nga nek alxaan waxoon na bu len saga ñi sampa bant na ya yalla la ndax bu ngeen saga seen bant yoy ñu saga man yalla ya ta ko yene ma togn lu jar xel la kon am murit lima ko waxon lima waxon sank wërta loof ci ruu wërta ruur manam saaram wërta hit réer ndax am na répertoire am fu señ bi lu mu fi tek ñu man xol ba tek señ tank kon li bokkoon ci li ci ñëw motax mu tëjee ko mu ne sëñ bi wax na ko sax sëñ bi da ko xeeb ndax mom da bax rek mbàkke lu mu def rek xeeb nako ndax yeer ñu ay yiw rek ndeysaan bëgg ñu mu ci rek mbacke bàlla yàlla nako yàlla dool ngeerum bëgg ñu mu ci rek motax tax lu mu def ci lu bax rek da ko xeeb moo tax man lawlaa shawaqili shawaaqili wa diixu sadri ndeysaan ak lim mu fa wax lépp mu xeeb ko te ñun ñi ci tok ñëpp ko fi joxone ak ren ba déwén ay balaa wax lu mel nii hmm? euh, damaa commencé ni jàng di sob-sob jàng di ji ma wayantu waaye li tax ma découragé dama bind ay way ñoo jox ko si Modou Kabir ko doom si Moussa mu jàng dama dama dama solo waaye way yomb na waaye woy ñu way ñu ko wayantoo moo jafe ca laa bàyyee man daanaka way yomb na waaye way ñu ko wayantoo aka jafe lii ak ndénkaan la woon ba tey ji suñ ko waxee tey dee mel ni tey la ko bind kon Mbàkke yàlla na ko yàlla fay daa mel ni ñu ngi yëngal jumaa ji de xanaa kon mel ni mën nañoo tënk wala daa mel ni xanaa euh, mën nañoo tënk jàpp naa ne euh, xasida yi euh, ndénkaane gi li ci nekk lépp mën mënu su ko leeral xanaa lii leen ci mënoon a tànn rek li ci leer yàlla ko dogal li ci lëndëm xam naa man maa ba amoon naa yéena lool waaye ni ma waxoon ci nga rek sama nijaay sëñ Moustapha Diatara ah, fas naaru góor moom aw moon mënu koo jot wala sax ci murum mbaam ñun ay ci murum mbaam dong lañ ci wetam la mo dañu tok ñun ñoo def dafa réer lool ñun waaye jëm si kaptalaay kàttan ñu ngi ñaan yalla yalla bu jota bi neen waaw ngeen bàyyi wasalaam ak jërëjëf sëriñ naa Ka ñu ngi lay sant bu baax ci dénkaane wam solo bi nga xam ne yaa ngi ko doon jàngat muy dénkaane boo xam ne sëñ bu mag bi radiyallahu taala anhu moo ko bindoon jëmee ko ci ab taalibeem bu ñuy wax Abdullahi Saar waaye ni nga ko waxee rek denkaane la boo xam ne ma def naa wax ne képp ku di ab murit muy góor wala muy jigéen rek jàppal ne ci yow la ko jëmee xëy na nit buy dénk nit léeg-léeg dana tudd turu ka muy dénk mu nekk loo xam ne dafay nekk xaas ci moom waaye nag bu jàllee day nekk am nga ni ñépp ñoo ca bokk yam lu mu ko digal lu ne rek digal nañu ko ñun muridi waaye lu mu ko tere lu ne rek tere nañu ko ñun muridi comme alquranul karim saa bu digalee yoon bi alayhi salaatu salaam dara day mel digal na ko xeetu yonente bi yépp waaye saa bu ko teree dara day mel ne tere na ko mbooleem xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci mën a déggee eh, ni nga ko waxee mu doon dénkaane boom te daf fees dell ak njariñ ndax sëriñ bi da ci andi ay tomb yu fasanti ko te am solo lool bi ci njëkk mooy loolu nga wax sànq muy ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala digal na ko moom bi muy dénk mu ragal yàlla di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem waaye digal na ko ci biir mu doon koo xam ne dafay jël ay mbiram yépp wéer ko ci yàlla borom bi wa taala ndax nit ko wéer say mbir ku dul suñu borom bis dana ñëw mu jóge fa ak ku mën a doon yàggam yàggam dafay jóge yàlla rek mooy ki xam ne moom day des te du fi bàyyi ko waaye digal na ko tamit muy moytaniku di sàkku aaju ci keneen ku dul ndax ku la dimbale ku ne rek dalay lay di sañal te ku la sañal manal la kon lolu dañ cey déggé muy bëgg na morit bi di demal bopam di gorlu di def ay effort yi bopam ngir mëna am lo xamanteni ni koy jariñ ci aduna waye mëna am tamit lo xamné mo koy jariñ ëllëg yamal xiyaam waye bokku na tamit ci li nga xamné denk dénk na ko ko muy muy tànn kimi muy àndal di moytaniku di andak nit ko xam day moy yalla borom subhanahu wa taala ndax kuy moy yalla mom booy yandak mom bu yagge mu pikiir la mbonte googee nga xam ne moom la nekkee ndax dañuy wax ne jikko dafay sàcc nit bu dee ànd ak nit bu yàggee jikko yi nga xam ne moo nekk ci moom buy rogaraat di ñëw ci yow doo ko tey booy ànd ak ku baax baax da lay yomb waaye booy ànd ak ku bon bon tamit dalay yomb kon nit ki war nay tànn ki muy àndal ndax yonte bi alayhi salaatu salaam waxoon ne ne almaru ala diini xalili cam su ne dañ koy natt rek ci diinay mbokkam wax ma sa waay ma wax la nit ku re kami xolé kami and rek ma neef naa xamne mom kat yi moy jikko yi nga xamne mo nek ci mom waye bokku na ci lim ko denk ba tayit it buy and mom mi nga xamne moy abdullah sar Sarr bam ko téré muy and ak kuy moy yalla digal nako ko muy ànd ak ko xamne da fay doon borom xam-xam buy jëfee xam-xamam baña jeng teggu ci aw yoon ndax borom xam-xam bi nga xamne da fa xam-xamam sa boy and ak mom dalay orienter dalay tek ci yoon wi nga xamne moy yoonu jup waye dula jenglo waye dula tamit xirtal ci ak mbon waye ci lu bax rek la lay xirtal waye bokku na ci lim ko digalit mu don ko xamne da fay takko ak sunna si bi ali sallallahu alaihi wasallam bañ ca yok dara bañ ca wàññi dara waye mu teje ko comme ni nga ko waxee sànq rek luy wane na denkané bi fess na del ak njariñ waye and ak lo lepp sëriñ bi da ko jappé lu da ko jàppee lu néew maanaam bariwut ci moom ndax fukki waay la ak juróom-ñett bi ma koy xoolaat léegi fukki waay ak juróom-ñett nag taxut mu bari lool wax ko tamit ne ko bu dutoo nag samay soxla yu bari yi nga xam ne moo dox sama diggante ak yow soxla yi jëm sama diggante ak sama borom soxla yi jëm sama diggante ak mbindeef yi ak xatuk sama dënn kon dinaa la gën a jox lu ëpp lii ma la jox kon loolu doon lu am solo lom te nii lu ma ta bàyyi xel la kon ñu ngi lay sant bu baax ci ni nga xam ne noonu nga ko traité di sant mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun di sant waa Touba Vision ak ñu mel ne waa Mafatihul Bisri TV ak ñu mel ne waa Alxadimiya mel ne ne ñoo ngi koy jàllale di ànd ak ñun jataay bi di sant tamit commission bi nga xam ne ñooy taxawee jataay yu am solo yi di tànn thème yi di tànn ñi nga xam ne ñoo fi def ay waxtaan ci njiital Serigne Bassirou Diatara ak mbooleem mbokk yi nga xam ne na ak ñom liggéey bu am solo bi xamna suba ñu leen di wax ne jotaay bi wara am mi ngi jëm ci jami'atu as-Shaykh Ahmad Bamba ahdafuhu ahdafuha wa aqsamuha wa injazatuha muy université ikap bi nga xam ne université si Ahmad Bamba bi nga xam ne sëriñ mu serigne Murtada moko ko taxawal danañ xamle yan jublu way motax mu sosu dañ xam tamit façon xaj yi nga xamne mo ci am ci lañuy jang ci université ba ak yi nga xamne jot nako amal moy lim jotta a ci ay réalisation ki ko war di suñu mbokk al oustaz Serigne Yankuba Jatara euh, badian serigne Yankuba badian ñu ñaan suñu borom defal ko ci tawfiq ak ndam di sante mbokk yi xamna dañuy bayyi ak Serigne mohammedul Fadil mu eggale li ci des wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa waa kay jërëjëf euh, sëñ Mbacke Diop ci waxtaan wu am solo leen ñu indiloon tey feggoog sëñ Cheikhouna Ka xam naa dañuy profité di leen fàttale rek mooy fatawa yi fi war a am alxames bii di ñëw képp ku fi nekk te am laaj boo bëgg laaj ci wàllu diine mën nga ko fee bàyyi bala ngaa dem incha allah rabbi xam naa nu tamit dañu leen di fàttali programme suba bi nga xam ne ni ko sëñ Mbacke Diop waxee rek sëñ Yankoba Badiane moo ko def mu nekk université Amadou Bamba objectif portée et maanaam muy jubluwaay bi dayo bi ak tolluwaayu liggéey bi kon boo ko defee ñu leen di sant bu baax di sant bu baax kilifa yi fi teew chaque jour ñu koy ànd ñun ci waxtu yu mel nii ñu ngi profité di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom di bu ñu ba suba jàmm incha allah jërë ngeen jëf.